sama sama cousine bi ñëw na xam ngeen sama cousine bi nag. Mm. bu leen ko woon di koy sel sa dama leen koy présenté kaay Yacine benaar lañ koy woowe nag. bu leen ko fontoo xam naa leen. yabaateeg yéen da ngeen di tàddaas kuy doog a ñëw. non mais viens ma petite cousine viens chérie viens xam nga les cousines sont faites normalement pour les cousins <laughs> voilà. bàyyi bàyyi bu dem ñëwaat rek toog nga koy xëccoo micro noonu kii du alfi <laughs> jërëjëf waay. ay satu benaar. Eh, Benaar la tudd Benaar <laughs> di di kii Ibaadu la xamul accolade ah da ngeen accolade di Ibaadu yi. ah dama njëkk yëpp. kaay fa. waaye Ibaadu bi xanaa am na tur. Mary moom nag day xëm ak yooyu yëpp bu xamee ci télé bi rek bul bul am surprise. Exidex tu dois connaître. oui fóon ko. et pour les hommes trois bisous. bienvenue reprendre à zéro trois fautes fautes. allez hop un deux trois voilà moom nag il parle trop euh, ah kii xam nga ko Mado mooy def seetu bi ak dërëm. voilà. <laughs> bienvenue. ñu ngi ñëw dégg ngeen. yéen tout ça sera coupé en cas de ëllëg quoi. ah la la la la la la mbooloo mi ma présenté leen sama mbokk sama cousine elle s'appelle Yacine normalement mais Bénard lañ koy woowee Alfi nag comme newu fi ma woo sama mbokk pour mu ñëw di ñu toggal voilà tàccul leen ma ko bu baax quoi mais nag télé bi boo toog viens viens lui mettre le micro ah vas-y Mbadia Diop y a pas de problème c'est la télé en 2018 mën nga feeñ pour nit ñi la musul gis toog regardez <laughs> kii mooy toog <laughs> waa Tchad gi seen président moo tudd naan Boairi wala président wu Tchad bi du mu tudd. xam xamu <laughs> na nga def. naka suba si. rusuloo am nga tuuti stress mais est-ce que mën nga togg. maa ah, doo ragal. d' léegi tey pour kii bi nu mu tudd ouverture bi quoi ouverture des sa ouverture ce que tu vas nous proposer. damay def euh, banaan laay jël tiital ko. Mm-hmm. tiital ko ànd ak glace que dafa tàng. Mm-hmm. Mm-hmm. bu ngeen déggee accent bi nag bu leen tiit bu leen ragal ndar ndar la lii nii laa kaa toggee <laughs> dama cee tëbal ay doonju galaas <laughs> léegi noo kaa toggee moom kii bi euh, euh, banaana bi. kii nag te hmm. mhm. kii muy caramélisé tuuti. muy cramé waaw muy caramélisé accord accord. ngeen euh, uh-huh. léegi nag amul stress amul dara dama lay bàyyi nga commencé expliquer ñu Alfi daa <laughs> Alfi de lépp la yow Alfi yóbbu na gaz bi di <laughs> waaye yow léegi nu ñuy tàngalee suñu lii Alfi moo bon. Alphie moo bon bon je te laisse nga préparer wu ah mais dama lay bàyyi nga nuyu téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu ñee ña nga nga nga nga jàmm sante ak ñoom très rapidement après nga dog a commencé togg wala ma bàyyi ko mu soufflé ma bàyyi ko mu nooyu tuuti may ko ndox waa naanal ndox waa <laughs> eh les joli ah mhm. suñu mbokk yi nii la mel <laughs> dama bëri ay fil trop. voilà donc désormais chaque matin. kuy àggale émission bi Maria. <laughs> donc Yacine Bénard la tudd euh, moom moo ñuy euh, moom moo ñuy toggal dina àndandoo ak bocage ànd itam ak euh, Beko tey daf ñuy proposer benn dessert ce sera pour tout à l'heure en attendant 10h32 mooy doog jot dañuy jàll ci bien-être ak Madeleine ah <laughs> yu am na lu la del tey <laughs> li nga sëg yëpp li nga <laughs>